Sénégal Omar bu ñu buggee beneen Sénégal Sanusi il faut que mu nekk Sénégal boo xam ne ci constitution bi dañuy jël nguur gi jox ko askan wi naka mais au moins na am lu ñuy woowee par exemple veto populaire ñu ne par exemple nangam citoyen sénégalais bu ñu si ñëwee ne d'accord ñu ak accord de pêche mais ak koo munti tudd nga nekk président de la république veto populaire boobu may na pour bloquer les accords de pêche bu ñu waxee non d'accord ñu ci présence militaire française wala dañoo bëgg voilà muy veto populaire et ça donne mais sinon kon foog nga xaar dans cinq ans pour que conseil municipal bi nga xam ne wala président bi nga xam ne wala député bi nga xam ne li mu diggan yëpp da ci génn ba mu set wecc <coughs> mu réew dañ koy pencoo ñu fal ko mu ne réew dañ koy pàccoo foog nga xaar dans cinq ans non loolu amul fenn veto populaire il faut que ñu xalaat ci yeneen mécanisme yu mel nii appart veto populaire euh, référendum d'initiative populaire kan moo am initiative référendum président de la république lu ko neex lay bind mais war nañ mun a ne pour dooleel askan wi delloo nguur gi askan wi xalaat ay jumtuwaay yu mel nii référendum d'initiative populaire maanaam ñu ne bu ñu amee nangamu lim askan wi nee na ok président de la république da nga bëgg signer accord de pêche ñun ñun nappkatu Sénégal d'accord ñu ñun béykatu Sénégal d'accord ñu bu ñu amee nangamu lim. forcé ñu organiser un référendum sur la question de la monnaie forcé ñu organiser un référendum sur des réformes par exemple dans en fait l'enseignement donc. delloowaat décision peuple bi ñu jël ko en en main. nguur gi ñu jox ko askan wi parce que nguur gi askan wi mosu koo yor parce que démocratie représentative c'est une dépossession c'est un accaparement du pouvoir par. les élites politiques par la classe politicienne et donc ñëpp ñi nga xam ne dañuy tëlli tëllee naan man bëgg naa nekk président il faut que askan wi ñu mun xool beneen Sénégal mooy beneen assemblée nationale nécessairement et beneen assemblée nationale dafa war a am beneen xar kanam bu dul bii constitution bi foog ñu soppi ko assemblée nationale bi foog ñu soppi ko il faut mu am mais la possibilité de révoquer fal nañ Omar fay conseiller Rufisque mm-hmm. yàlla na am te yàlla bu mu war waari fisc mais mu ne naa def lii naa def lii naa def lii mu ne buñ ma falee man maire au niveau de Rufisque Rufisque d'accord naa ko xaaj mu nekk ay penc lépp lu ñuy dogal foofu lay jóge waaye tamit foofu la ñuy contrôler l'action municipale mu falu mu def leneen lu ko neex mais il faut ñu am mécanisme boo xam ne mairie bi nga xam ne Omar moom la jiite mais askan boobu mun na. sur un certain nombre de scrutin bi aussi pose ah. problème. sur système wu raw gàddu. par exemple à Pikine nu on neuf députés. Ah, mais raw gàddu bi su amee benn xob ki ko ëppale mu waabale yi nekkoon sur la départementale est ce que loolu tamit nekkul jafe-jafe. beneen question bi Guy mari Sagna sur toutes les questions ñu ngi lay dégg euh, parfois gars yi dem est ce que demain on peut s'attendre que Guy mari Sagna nekk ci list pour dem assemblée parce que jàpp nañu aussi débat public bi foofu tamit joué rôle boobu. Euh, Cheikh Omar sa laaj bu njëkk bi. Mhm. loolu bokk na ci jafe-jafe bi naa ci ñëw léegi waaye même loolu boo ko réglé te député bi wala conseil municipal bi nekk ab jaraaf bu ndaw ab buur bu ndaw ab ab brak bu ndaw boo xam ne boo ko falee mënatoo dara ci moom lu dul xaar dans cinq ans même mode de scrutin bi bu baaxee mais mun nga yoone benn gi saañaa boo xam ne la mode de scrutin est plus démocratique mais mu dem defi lu ko neex. parce que mode de scrutin bi tekkiwul ne askan wi am na poigne am na sañ-sañ au jour la jour ci ñu ñu fal mais man bu ma amee sama tool man maay njaati gi Omar Faye mooy sama surga mais ndax xel mën na xalaat sama surga mënu ko dàq léegi askan wi am ay surgam ñu leen di woo conseiller municipal ñu leen di woowee député ñu leen di woowee président ñu leen di woowee délégué du personnel même dans les entreprises même dans les hôpitaux am na ay délégués du personnel waaye mënoo presque dara ci ñoom léegi nag débat bi nga posé il est important mode de scrutin bi il est antidémocratique mais c'est fait exprès mhm. c'est fait exprès pour que suñuy réew parti yi am moyen yi yi am implantation nationale mooy parti en général yi nga xam ne am nañ ay ministres au voilà am nañ ay ministres am nañ budget parti yooyu raw gàddu bi ñoom la avantagé raw gàddu bi ce n'est pas démocratique mais loo ci gis ku fi wax yaa boo nekkee opposition nga ne mode de scrutin bi ce n'est pas démocratique question bi ce ne pas démocratique et cetera boo nekkee au pouvoir nga utiliser ko comme njumtuwaayu écarter ses adversaires di même inventer d'accord ay parrainage ak ñoom seen donc mode de scrutin bi man personnellement dama jàpp ne dañoo war a def proportionnel intégral waaye même boo defee proportionnel intégral il faut comme je dis loolu rek doyul loolu ça démocratise proportionnel intégral changer mode de scrutin bi lu muy indi mooy les différentes sensibilités yu nekk ci askan wi ci wàllu gis-gis elles ont plus de chance de egg au niveau du conseil municipal ou au niveau de l'Assemblée nationale mode de scrutin majoritaire bii li muy indi mooy ñenn ci ay sensibilités yi ñu ëpp doole des gens du système ñoom ñooy dem il faut nga changer la ca des la ca des mooy yan jumtuwaay yan mécanisme veto populaire référendum d'initiative populaire possibilité de révocation maanaam ni ma munee xëy dàq sama liggéey kat ni ma munee xëy dàq sama surga noonu la askan wi tamit mu war a a dàqee ses surga contrôler ses surga d'accord très bien alors euh, ñu ñëw ci yow euh, euh, professeur oui deuxième question bi dinañ <laughs> dinañ ci ñëw mën naa ah. ñëw sax xam naa di nga ci di nga ci tontu professeur très rapidement moom itamit mu jox ñu analyse am par rapport à tout ce qui a été dit. man euh, par rapport à tout ce qui a été euh, bien dit hmm. mais pour man euh, j'ai envie d'applaudir Pape Matar parce que xam nga euh, budget c'est pas le budget qui compte le problème problème lu ñu du lu ñuy soor problème lu ñuy yàq la parce que Pa Matar il l'a bien dit même budget bi su nekkoon des centaines de milliards de milliards de dollars ça ne changera absolument rien dans le quotidien du Sénégalais parce que train de vie de l'État bi dafay yokk c'est aussi simple que ça waa ji da wax mu ne du li ñuy soor ci cin li moo am solo bu dee yàqin ba dafay dëggee mbagg c'est la métaphore que je donne temps tey ñu ne démb dañoo sóoroon téeméeri kilo ñu ne tey budget bi yokku na soor nañ ñeenti téeméeri kilo mais nee na Aïcha nga xam ne moom mooy jiite émission bi moom dañ koy yàkkal téeméeri kilo Bougane Gueye Dany bi nga xam ne moom moo fi moom dañ koy wekkal ñaar téeméeri kilo mu des téeméeri kilo ñu ne Omar Faye ak Pa Matar ak Talla seddoo leen ko ban sens la am Cheikh Hamidou Kane toujours ñu wax ko il faut ñu dellu ci ñi nga xam ne dañoo jàng bind le développement d'un pays ne se mesure pas en fonction de la masse de ses richesses en fon mais en fonction de la répartition de ses richesses 1921 la ko bindoon l'aventure ambiguë beneen bi nga xam ne nii moom moo ci nekk xam nga problème mu priorité yi man Omar yow tey nee ay sa gis nga soo génne woon nga def sa rajo trottoir waxuma ñi jàngul de nga laaj leen même les grands intellectuels nga laaj leen budget Sénégal ñaata la kenn xamu ko waxuma bu Macky Sall de depuis ab Ablaye Wade les Sénégalais se foutent pas mal du montant du budget parce que jëriñu leen dara man xaalis boo xam ne dañ koy voté te at bu nekk ma gën a am problème mu mbënd at bu nekk bi ñu nekkee xale ba tey ñu ngi jooy courant ñu ngi jooy ndox ñu ngi jooy lekk ñu ngi jooy école alors cin loolu bu fekkee li liñ ciy yokk mi ngi gën a bëri te ñi ci kër gi ñu ngi gën xiif yaa xëytu mu laa luy suñu yoon ci saako ceeb beneen bi mooy priorité pour priorité xam nga dama doon wax naan dañuy suukar lem te soom bi safut non léegi dañuy dolli géej ndox te laa ngi deey xam nga luy deey nen na Aïcha mm. xam nga luy deey xanaa seetaanoo kànju mm. ne ko sama yaay nee na nga may ko ndox mu ne ko teen bi dafa déey déey mooy à sec dañuy yokk ci géej gi ndox aujourd'hui sa Seck yokkal nañ ko ndox ci géej gi alors que à côté ubbi nañ école yi est-ce que yéen xam ngeen ne école yi ubbi nañ ko ñu ngi jàng amul benn protection école yi amul masque benn élève laa wax télévision laa nekk. protocole sanitaire bi ñu doon vanté. dama ne la benn protocole sanitaire ba. ak budget ba ak agence yi ak loi yi ak député yi c'est de l'ordre de la théorie mosul nekk de l'ordre de la pratique c'est tous des irresponsables. mais pourquoi déphasage boobu noonu. mais pourquoi déphasage boobu parce que Guy Marius Sagna wax na ko fi toujours c'est parce que ñun on n'est pas indépendant on a des maîtres de tout le temps peau noire masque blanc xam nga ci analyse bi nit ñi dañuy dem ba fàtte ni Sénégalais yi comme ni mu ko waxee léegi Idrissa Seck. moom ak Macky Sall ak tous les présidents du Sénégal on n'a jamais eu un président du Sénégal indépendant dañ leen di mos a toujours seeni loi xam nga démb lu ñu tey tey wu démb tey lan lañ def euh, ay booru bi 14 16 heures booru pharmacie golf mais policiers yi dañuy wër di jàpp ni ñu sol masque yàlla xam na ko man benn booy moo ma approché mu naa mu professeur boo duggee ci oto bi mu naa mu ne ma te soloo masque policiers yi ñu ngi lay surveiller dañ lay jàpp ma jàdd ci biir bibliothèque bi mel ni kuy jënd dara jënd benn masque sol ko au moment où on nous boo duggee ci oto bi soloo masque ñu jàpp la à l'école au lycée ñu on est 2000 dans ma classe aujourd'hui la terminale L2F il y a 60 élèves pas un élève ne porte de masque booy dugg ci école bi amul benn mesure dañuy dugg alors on se kii et Macky Sall commencé waxaat ne su amee beneen deuxième vague duñ ko mun a supporter mais c'est lui-même qui est en train de préparer nan nga mun a tijjee école ay ñaari junni nit toog kenn solul masque da nga ne feebar dafa am loolu ça pose des problèmes problème bi ñu war a poser mooy askanu Sénégal bi seetaan dañu war a xam ne man la may wax démb ba tey li ko dalee ci Senghor ba ci Macky sàll jaar ci ab Ablaye Wade ba ci Abdou juuf ku ci nekk sa bopp nga fi toogal